a baax waaw maa ngi ziar ñëpp di nuyu waa mbaaw benn bara kër masaar yëmbal buur malika bii ma dëkk maa nuyu sama gaay yëpp di nuyu ah, waa kër gi tamit oh, waaw sama kër grand bii ma nekk tey waa di ko nuyu bu baax a baax tay si nga maa ngi lay nuyu di la ziar wër di la jox sa di nuyu gi ma fiyaa bi waaw ok waa defet bi waaw defet bi mooy victoire bi kay def lu kenn deful quoi lan ngeen def waaw xoolal ah, rek lu gaay li ponk deful lañ def mooy maanaam yëfu yi yëfu jàmbaar. loo koy ponkal yaa ngi woore. waaw lu kenn mësul def lañ def si làmb ji. Hmm. te ñëpp bëre ponkal bi mais ponkal bi lu mu def benn ponkal defu ko si làmb ji. dox si garde pop kii euh, tafaatin hmm. bëreeg moom. Hmm. def ko ni ñuy def maanaam xale. loolu lañ ko def si làmb ji waaw. xam nga moom ndam mi suñu borom moo ko yor. waaw bu naree ñëw day ñëw. mais bu narut a ñëw kenn di ko forcer. Mm. waaw lu nar a am moom. mooy am lu narul am du am. Mm. waaw. kon waa mbaaw ak waa Pikine ñoom defet bi victoire lañ ko jàpp. defet suñu borom moo tuddee noonu rek. Mm. mais yàlla tamit moom mooy dogal tamit si jàmm bi te lu mu dogal tamit moom mooy dañ koy nangu tamit. Mm-hmm. waaw mais def nañ lépp lu ñu war a def si làmb ji. Mm-hmm. Eh. defet bi bett na la ma waaw. ndax kenn xalaatu ko woon quoi. waaw man mosuma koo xalaat sama live quoi. mosoo yaakaar ne Tapha mosuma ko xalaat wax dëgg fa neex yàlla barke sëñ Saliou mosuma ko xalaat. mais lu ñëw tegoon. waaw si sama mbër laa tegoon waaw te tamit ñu mu bëreel tamit waaw xool qualité yi bokkul bërëkat yi tamit bokkul waaw Tapha Tine champion la yëpp bokkul qualité yi ça fait deux. mu toll noonu ak li mu mënee bëre. mbër taay bi day naxaare dañoo foog ne mbër daa gàtt te mbër gàttul wallaahi mbër làmb ji kenn dàkkoo xeex. Eumeu waaw. làmb ji kenn dàkkoo xeex ndaanaan la champion la. gars nag dañ ko xamul ko waaw dañ ko xamagul ba léegi. waaw te tamit mbëri yi wax ne ay Eumeu mag la ay mooy loolu parce que Sëñ Saliou Mbacké ñu bëri ba lu mag di am Eumeu benn at la leen magee. dafa teel a bëre waa waa CNG ñoo ko wutal carte d'identité waaw gars yi xamuñu loolu ñu bëri waa CNG ñoo ko wutal kaa daan waaw pour gars yi xam loolu. dafa teel a bëre. keroog ma gisee Eumeu Sène ci biir làmb. waaw Eumeu Sène moom chaque jour day indi làmb cosaan lay indi. keroog dafa dugg si rek gars yi xam ne mbër bi moo ñëw. gaynde gi ñëw na jàmbaar ji ñëw na si biir làmb ji. indi lu séeréer si indi muy cosaan. waaw. bilaahi. ñu gis mu rendre ki nga xamante ne Mouhamed Ndao Taïba loolu nan nga loolu geste bu naaj moom chaque jour sur lu rafet lay dox. sur lu rafet lay lay moom bëggul dara dara lu ñaaw. chaque jour day rafetal. barke sëñ Saliou chaque jour lu rafet lay def. billaahi bëggul dara dara dara ñagas. Mhm. moom moom moom lu mu tas tas Pikine lu mel mel moom da koy téyewaat defaraat. waaw moom mooy grand grand boo xamante ni maanaam bëggul dara ñaaw si Pikine waaw chaque jour lu ñaaw da koy rafetal da koy defar ba mu rafet barke sëñ Saliou waaye. lan nga ni mën a xaar ci moom ci yeneen prochain combat yi nga xamante ne war na koo jëflanteeg yenn bëri ku si mel ni Balla Gaye waaw si mel ni Balla Gaye Eumeu Sène ba léegi mu si ci entraînement yi comme njaay Abdou Ndiaye lu mu koy waxee rek ay ñoom papa mu ndaw lundi lundi war commencé waat nekk am na yeneen lu koy xaaraat. waaw ndax moom maanaam làmbam chaque jour gars yi dañuy trompé da leen trompé waaw chaque jour ah, saa yi seen làmb ji mën na see génn saa yi ñëw génn si ñëwaat amaat beneen génnaat si te incha allah suñu borom dañuy gën a suturaal. man combat Eumeu Sène moo la gën a marqué boo xamante ni boo toogee da koy xalaat sa xel ci ci nekk. waaw su lay dog waaw làmb jooju maanaam. comme boo xool da naan comme moo tafaatin bi rek la su lay dog moo ko ëpp suut ko te su lay dog day faayet day xeex mm. du may dara mbër dafa bëreeg moom areeru ko benn yoon bëreeg moom bëreeg jàmbaar wane ne yow ëppoo ma dara daaxoo ma daray làmb wallaahi suñu borom may ko daan ko may ko jël bu rëy barke sëñ Saaliw mosoon nga ki nga xamante ne mooy Tapha Tine Ardo waaw ndax xam naa lu mu entraîné xam naa lu mu yóbbu du nuyu tamit coach Kandji dafa dafa job si moom lu garaaw wallaahi lu muy xeex yëpp Kandji moom moo moo ko moo ko géré. waaye. ni la waroon nekk bu nekkoon yow la nan ngay waaw xam nga xam nga làmb la ñuy wax làmb boo juumul doo daanu waaw ku juum daanu loolooy làmb. billaay ku juum daanu booy te bis defet bu ñëwee rek ñëw na. waaw li nga war a def pour daal da lay réer waaw ok critique yi nan ngeen koy dundee gis nañ booy ma seen daanoo gaa yaa ngi def ay challenge di nekk si tiktok bi xam instagram bi yooyu nan ngeen ko gisee en tant que ay proche ma seen waaw dëgg loolu moom moog làmb ñu ànd quoi xam nga gars yi ku ne génne nañ seen kii di mbarak xam nga mais loolu moog làmb ñu ànd yee waaw waaw man moo affaire làmb bu di ah. waaw saa da koy démb rek démb doo da ko seetaan di reetaan wallaahi di reetaan ci guddi maanaam làmb la ko waaw te saa moom làmb lay dund bilaa après xam nga man moo toogee seetaanam dama xam ne maanaam mbër dafa def si làmb ji loo xamante ni lu garaaw la yi ñu ngi koy bàyyi xel ñu koy gën gën a bàyyi xel doomu gaynde la du musa ragal wallaahi waaw ban yóbbante nga xamante ne fa waaw la laa leen gën a dénk ñu gën a jàpp gaynde gi parce que sëñ Saliou Saliou du waxantu sax Saliou mosoo gis kenn ñëw def interview yi wax ci moom lu lu garaaw mu ñëw tontu la mosul am boo xoolee képp ku def interview moom dalay bàyyi rek dala seetaan quoi du la sax faale du may code boo xam dalay tontu ndax kooku noonu maanaam nit ki chaque jour heure boo defee erreur pour pour kii ko da da ngeen koy da koy may courage jàppale ko ndax gaynde gi maanaam champion la ndax waa Pikine bàyyi xel waa Mbaaw tamit chaque jour ñoo ngi si lébu yi ñu ciy taxaw bu baax a baax billaahi am ñu dugg ay soo xamante ni fu ne la ñuy jógee ñëw ndax grand gi waaw nañ ko nañ ko bàyyi xel bu baax a baax li mu def si Pikine waaw waxuma kenn defagu ko quoi gisuguma ko ko nangul lu mu doon quoi waaw nañ ko nangul baax a baax a baax gaynde la jàmbaar la bi ma jeexale mooy si euh, sa combat combat yi taxawagul waaye yóbbante la rek gars yi neen wane goo fi nga bokk li nga ne li nekk ci yow wane goo ko lan mooy problème bi boo jaxaw waaw boo xoolee ñoo ngi def def nañu huit combat waaw ñu am deux défaites la boo xoolee ñun ay xale lañ tamit te samay xaaw yëpp ñu bëre ma mag dama teel bëre ma tamit parce que seen saal dama teel a bëre te tamit nekk si làmb tamit xam nekk booy bëgg a làmb yenn saa nag. heure day ñëw yow bu mu may seet si boobu gisoonu ma tool maanaam tout tànk la ba ngay ñëw naan ma jëlal booy boo boo góorgóorloo di ci génn xam nga loolu tamit yàgg na. mais làmb dam chaque jour nii lay def dañ saa day neex yi saa mu naqari waaw mais na gars yi pare rek maa ngi ñëwaat maa ngi si yoon bi. waaw ñu ngi dox sama combat arbarka noonu ko dox mais après daa mujjee yàqaat. ar ko waaw daa am combat daa mujjee yàqu waaw moom Aliou la mujjee jël xam nga Aliou la mujjee jël tamit di ñaanal sama doom yaay yàlla may ko ndam Aliou Fatfat di ñaanal teg soog tamit dimanche suñu borom suturaar ko képp ku nekk benn baraak maa ngi lay nuyu di la ziar waaw Malika Kër Massar Boun waaw waa àll baay ñaax maa lay nuyu bu baax a baax a baax waaw mais booy tàng yi nañoo jël waaw sa genn mer fanaanoo de bukaa ragal la moom ragal du ma jël man instant yi ba àggu fi kenn ndax man waaw làmb laay dox waaw waaw ñoom ndox ñoom moo ndaw sama grand yi ñoom dañ may teg metti métti waaw dañ may wër na yàlla ñëwee fii dañ may entraîné ma xam ne man instant yi wër na sama morom bu ma jaaxaroo maanaam day xaar quoi ay ñoom papa ndaw may nelaw ba benn heure ñu ne ma ah jógal mbër jógal dem entraîné xam maanaam kuy def rek man ñoo la muy ñaari grand frère yee toog waaw dañuy sonn si man tamit voilà di nuyu xaadim sama grand bi bu ñëwé ba légui heure bu ñëwé na taxal ngeen mu ñëw contact wallahi ya mali ziar lay fay lay ziar bu wëré wër jox sa waccu way en bëgg bu baax seen téway fi ñu leen di bëgg bu baax di leen ziar waaw bañ faat ñu tour mohammed ndaw la waaw waaw sa digënde ak ma non sama digënde ak ma Eumeu Sène moom suma lépp la suma grand la suma lépp la daal waaw suma lépp la waaw. keroog ñu gis. Euh, waaye làmb ji moom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax waaye di dool di santaat quoi xam nga jàmm moom lu la yàlla may rek da nga koy sante quoi Eumeu seen moom keroog def na lépp lu mu war a def waaw def na lépp lu mu war a def mais yàlla tamit mooy ñëw ak ay dogalam yàlla tamit moom mooy may doomu aadama ko yàlla moom lu mu la may rek da ko koy sante ko waaw. keroog amul lan la waroon def ci làmb ji loo xamante ni defu ko. non amoo moom lu mu war a def ci làmb yëpp def na ko li ma gis li mu war a def ci làmb ji yépp def na ko. Eumeu seen ñun ñi ànd ak moom dañ koy yërëm Eumeu Sène du xaar kenn ci entraînement Eumeu Sène day liggéey diir Eumeu Sène lu métti lay tërëm Eumeu Sène ñu wax dëgg yàlla duñ ko wax dara li war a def yëpp def na ko wallahi azim lu war a def yëpp def na ko yàlla nag mooy rek dañ koy nangu quoi dañ koy nangu ama seen kuy ñeme entraînement mu ngay jàppale ama seen même bu lekkul avant sax day entraîné day entraîné da ngay jékki mu taax oto bi ne mes mais bu ñëwee nga xam ne kii entraînement la jógee mhm. ñu gis combat am ñu bëri dañoo jëloon li nga xamante ne mooy xeex bi jox ko Tapha mais gis nañ keroog dafa mel ni moom mooy xeexkat bi ñoo ne wana li nga xamante ne mooy xeex ba dominer ki nga xamante ni mooy Tapha Tine euh, ndax xaaroon nga loolu ci Eumeu Sène. waaw Eumeu Sène c'est que dafa di am na ñoo xamante ne man li may wax nii am na ñu ko xam mais am na tamit ñu ko xamul ñu yàgg seetaan làmb Eumeu Sène ce que am na combat bu mu xeexul Eumeu Sène est-ce que am na combat bu mu xeexul parce que man bu ma gënee nekk booy Pikine am na benn mbër benn mbëru séeréer la woon benn mbëru séeréer la woon su lay topp non kii Simel Fay Simel Fay mbër moomu sa waay yàlla ko yàlla yërëm sax dégg naa ne génn naa duna quoi ko kenn ñëwoon lekk awaasam ama se bu muy lekk awaasu dafa euh, awaasu Simel Fay bu booy la booy booy am na sax waa magu Pikine ñu ko wax dina delloo avance bi mu ne du ko delloo mukk ko ku mu jàmbaar la woon dalay duma dalay daan mais keroog tàkkusaan ak Eumeu seen maanaam journaux boobu bu mu xëyee ñu teg ko ñu wane ko nii journaux boobu dañoo ne dañ nañ effacer image yi Eumeu Sène da ko def jëf ju metti kanam bi yëpp la yàq làmb jooju et puis Eumeu Sène su lay topp ñuy wooyee suleetu olifine olifine da lay cadré bu lay dóor ngay wàcc. mu doon xeex olif su lay topp la tuddoon mais dañ koy wax olifine mais ama seen ko cadré duma ko daan ko ci bëri yaa may dégg ama seen combat bi dafa xeex mook la dajjeer première du mu demee di ko duma bañ nangu arbitre yi nangu la dëggee ci ay loxoom. ak ak Gris Bordeaux. Gris Bordeaux boobu jokkalante kuu mm-hmm. boo xoolee premier round bi. seetaanal bu baax li ma lay wax. xam nga gars yi dañu seetaan. Mm-hmm. dañuy gis nii rek mbër mu gaañu xam nga mm-hmm. mais da ngay seetaan faat bi fu mu tàmbalee. bu ñu nee bërët. ëmma gëdd. Gris Bordeaux daw jël tànk bi coppet ëmma dafa samp jaay loxo yi récupéré tànk bi. tourné jàkkaarloo moom kuy fa tàkk. mais xoola premier ku jéggi saako yi. kan moo jéggi saako yi Gris dafa jéggi saako yi ba ci gannaaw di xeex ak Eumeu Sène Eumeu Sène après bu ñu delsee mu ngi naan arbitre yi nii naa leen nu mu demee nii yéen gis ngeen day faay euh, encore gaañu gaañu bi lañ gis contre Gris Bordeaux mais nañ teg man làmb Eumeu Sène dama koy teg seetaanaat ko xeex la de c'est nag jël na fa coup boo xamante ne boobu moo moo moo moo tepp r bi. mais combat bi ñoom ñaa ñëpp jokkalante ay ko. macha allah waaw na solo mais lan la manqué keroog. ba ndam li ñëw. ama man li ma gis li mu war a def yëpp def na ko yàlla moom moo ñëw ak ay dogalam xam nga tey premier round bi Tapha Tine dafa jël dafa jël fa ay uppercut xama dem ardo bi mu demee ardo ñëw ñu sampaat jokkalante waat ay coup xamalaa bi ñu jokkalante ay coup Eumeu Sène moonte yoonu làmb la def de gis nga bu fa daanoon tafaatin ci dem boobu noonu jël tànk bi foofu gars yi duñ wax ko parce que dañ naan boobu tafaa comme mu ngi xeex coup gauche bu mu jógee rek si la Eumeu dem. mais gars yi ah, yu mu jël moo tax. boo xoolee nii boo tegee image yi. am na am na seen buñ tàqalikoo. jël na benn temps en arrière xool siggi waaw mm. mais boobu Tapha mu ngi indi benn ku góos ci la ëmma dem. Mm. mais dem bi yàlla ay dogalam quoi. Mm. yàlla kay dogalam si la dem jël tànk bi si kaw mi dafa mujjee wàcc ci suuf. Tapha Tine ràcc. bi Tapha Tine ràccee nag foofu ëmma dafa ñàkk dafa ñàkk appui quoi waaw. lu gëm ñu ngi koy ñaanal te tafaatin tamit ñu koy félicité quoi di encouragé sunu mbër ëmma te tafaatin tamit jàmbaar la quoi dafa faayit ba egsi dafa faayit ba egsi yal na ko ndam li jik quoi ama seen tamit yeneen yi ci kanamam yal na ko yàlla def ay ndam yu seetu guy ñu ngi koy ñaanal daal mu eggali ak sagoom quoi ñu koy ñaanal mu eggali ak sagoom waa di gërëm ñëpp nag waaw di sant famille Tay Shinger bi yépp ak ñépp ñu jàpp ci combat bi waa Gambie tamit ñu leen di bégee di leen waa Mbaaw ñu ngi leen di bégee di leen siyaare dëkkandoo xama combat dafa metti soo amee làmb koñ bi nii xama dafay fees yuuxoo yi fii xama ñu ngi ciy jégalu dëkkandoo mbaaw gi yépp nag di leen siyaare itam gis na seen taxawaay gis nañ seen taxawaay jigéen ñeeg góor ñëpp gis na seen taxawaay ñi nekk ci waañ bi jigéen ñi boobu bu xuj a jógee ñoom ñëpp ñu jóg dañuy bàyyi seen kër yi bàyyi seen boroom kër yi ama ñëw di jàpp ci une semaine bi kenn dootul nelaw togg fii yàq fii xama ñoo ñëpp ñu ngi leen di siyaar quoi di leen jox seen wàccuwaay waa Pikine tamit ñu leen di béggee bu baax di leen siyaare di leen rek sa waay dañ jàpp parce que di mbooloo mooy doole gis nga mbooloo mooy doole suñu xàccandoo di dóorandoo sa waay lépp la ñuy am isama la ñoom luñ ñu doon wax Pikine benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar nañ fa tegaat seen loxo isama la Ama Baldé ñu ngi koy encouragé di félicité Modou Lo Modou yàlla na ko ndam li jik Ama Baldé suma suma frère la maa ngi koy béggee bu baax di ko siyaare ne ko làmb nii la quoi ki ko daan war na ko daan na defaruwaat rek làmb li ko ci dese bari na booy bu ndaw la na sampaat rek nekkaat ci quoi di félicité waa këram yëpp ñoom grand Gilles Baldé ñoom Demba Baldé sama grand Paté Baldé ñoom ñëpp ñoom lamit Lamine du gaa yëpp maa ngi di béggee xam nga di euh, ñaanal tamit suma frère booy ñaar ci làmb ji mu jëm yàlla ko si yàlla may ndam bu seddu maa ngi koy ñaanal Pikine daal nañ xàccandoo dóorandoo am na amul solo quoi waaw sunu grand ëmma tamit moom ñu ngi koy bégee quoi ñu koy bégee di ko ñaanalaat rek ne yàlla moom mooy joxe ndam mais keroog du joxe ndam indi na ko ci làmb ji